Sen site Dakar Matin moo leen Sen may seen revue de presse ak Pape Alé bismillah bëgg libéré Karim Wade amna na waaye nag ci dëgg-dëgg ndekete yombul yene kay bi du l'observateur mo ñu xamal lu ñu mel ne ciabi ji le Macky Sall di wër jamono yi fan lay jaar ban porox ndoll ngir mën a libéré ki nga xam ne karim wad rax ci dolli beneen mbir mu di lan yéene kaay bi l'observateur yëgal ñu ne stratégie bu mu war a teg ba bu libéré karim wad du don événement mbabor topp ko yene kay bi du l'observateur ne amna ño xamne ban leen libéré amna nu nguur gi doxale won ak ñom de kan la Idrissa sek, ba ko met xablay wad di libéré dafa bayyi ba Sénégal di jëngante ak Égypte ci match Coupe d'Afrique mu libéré ko ak kan Abdou Diouf ba muy libéré dafa bayyi ba nit ñi di wajal fetu korité mu libéré ko ban la ci Macky Sall di def ngir mën libéré Karim Wade te mbaboor du ko topp docteur Mamadou Juma Diallo di xeltukat ci wàllu politique di xelal Macky Sall ne ah tanal bu baax a baax de ndax nag Macky Sall bés boo libéré nga xam ne di Karim Wade ci biti mbaboor topp ko daanaka Karim Wade héros lay doon enquête ne équation bi ci dëgg-dëgg mooy kopparu karim wadd naka la toll décision Macky Sall ci foofu lay sukkandiku amnesty wala grâce wala libération conditionnelle loolu yëpp nag balaa mu ci jël benn dogal dina xayma ba xool bu baax a baax lan ciy koppar la kii di karim wadd yor moo ne de walfajiri wax nañu leneen nee na Macky Sall signé na bu yàgg def na choam de signé na lettre de grâce jëmale ko ci Karim Wade waaye lu xew Karim ci boppam moo gedd lettre boobu na bugguma ko tey bugguma ko ëllëg rek sama ginnaaw bandang ñu ne ma Karim Wade sàccoo dara demal yene kay bi di wal fajri ne lolu mo taxone Macky Sall dem ci khalif général des mourides yegal ko nako na lettre de grâce waye ki di Karim Wad moko bagn est-ce que khalif bi dina forcer ki di Karim Wad d'accord lolu le ndax nak waxi serigne talibé du ko gantal loolu lañu wal kamal xamal te ji yene ka bi laat na makki bes bu libéré karim wad ba noppi nak <laughs> dina jakarlok ay ñoñom ay alliés ci biir fi nga xamne benno bokk yaakar parti bi di PIT ak LDMPT nyom lii di libération Karim Wade neexu leen tey neexu leen suba kon Macky nan lay doxalee parti yooyu le kay bi la turbine na man laajuma loolu de Karim Wade buñ ko gracier xanaa kay track des biens malak dañuy gas ba mu xóot ñu suul ko ndax amati benn wal fajir ne ah idi waxon nako de ne won li di dialogue ñi ratatat di wax rep dil rek lañuy def dil lañ bëgg def lolu ki nga xamne modi idris sek xamle won nako ci bami wax ci walu bi li am ba dess ki di maître elage diouf moko wax ne ah ci biir yene kay populaire na maki munta yaafus benn yoon ci li nga xam ne moo di traque des biens mal acquis déedéet kenn du ko may benn yoon mu yaafus ci déedéet avocat état bi ne kay li am ba des mooy délinquant financier ñëpp lañ war a jàpp accélérer cadence bi waaye buñ toogee ba ne fi mu nekk dañuy supprimer créé ñu wax ñëpp ay délinquant financier lañ bañ ñu dal seen kaw moo tax wax ñu wax ci leneen mu di lan code électoral bi ak fichier électoral bi yene kable quotidien duñu yegal ne opposition bi juba de déedéet ñoom rate nan sen dialogue ba fi mu nekk nii mënu ñoo génne benn liste unique Abdoulaye Daouda Diallo lañuy xaar mu jël dogal crise scolaire bi Abdou Aziz Al Amin mer na lool ci biir nena câble quotidien neena am na ñoo xam ne tànk jàmm yu ñu dox pour école bi mëna sauver ñoo koy yàq jamono yokk na ci leneen ne nañu dakkal enseignant yi ñuy convoqué ci gendarmerie jaaduwul tey jaaduwul suba té nak solution bu wor lañ bëgg ci biir yéna kay populaire muy xamlé né rencontre dina am maki enseignant ak famille religieuse ñu waxtané li nga xamné modi walu école bi yene kay bi de populaire na nguur gi de neena ñi ñu daggon sen salaire ay enseignant te grèveun dina len ko dello nu fay batalo jola fatuluku len dafa mon plainte bu nekkon ca paris fim nekk ni nak yene kay be populaire mu ñu yegal na cour d'appel bu paris no lieu total la def général babacar gay capitaine combo ak signan colonel tamba Yusuf sakho abdul hamid diop ak gomis jeju ñom ñep setal nan sen der ay AIBD mooy aéroport international Blaise Diagne mer gu futt lool moo fa amoon démb ba DG Saïd benn Laden group dañ ko séquestré woon liggéeykat yi ñoo ko def ndax dafa may engagement yu mu jëloon respecté wu ci dara nguur gi élégance républicaine xamuñu ci dara yéenekaay bi di laas moo ñu ko yëgal Ibrahima Wade nekk DG bu SN HLM dàq nañ ko démb nee na ci télé bi la toog yëg ko fi kenn woowu ko du ministre du président de la république du kenn te ak bëri fu mu jaar ak ñoom hmm, baax na jërë ngeen jëf ci déglu mu leen di dajeeg suba jàmm seen site dakar matin point com incha